demande bi dafa supérieur à l'offre par rapport à la ville sur la consommation d'eau c'est normal que ñu dund situation bii de pénurie mais bu ñu nañu saluer effort yi nga xam ni état du Sénégal def na ko pour permettre population yi am ndox à travers le ministère de l'intérieur avec les les le groupement des sapor pompiers donc ñooñu def nañ ci mucc liggéey bu mucc ayib ak waa Touba ca kanam accompagner nañ population bi pour ñu mën a am ndox pour période màggal bi mais la question de li nga xam ne moom moo am mooy inondation yooyu période nawet la ñu nekk taw bi bari na mais gis nañ ni sur le plan de l'assainissement état def na ci lu ay jéego yu mucc ayib mais gis nañ déboires yi nga xam ni gis nañ ko population bi di ko ci def parce que on l'a vu à travers les médias euh, tuyaux yi nga xam ni moo waroon as ndox mi génne ko tuyaux yooyu dafa am ay nit ñoo xamante ni dañ koy dañ ko doon dagg di sabote canalisation yi ba ndox mi mënul am yoon bu mu bu mu jaar yooyu aussi c'est des manquements et peut-être l'État def ci war a jël ay responsabilités yu mat sëkk pour empêcher à ces populations là di yàq li travaux yi nga xam ni État def na ko pour permettre l'évacuation facile de l'eau parce que loolu su amoon su nekkoon jël nañ matuwaay yi ci war peut-être ndox mi du taxaw mais il faut le comportement des population de Touba aussi parce que def nañ ci liggéey bu mucc ayib pour mën a ndox fexe nu ndox mi évacuer woo facilement dem ba euh, situation bi du am mais nag dëkku Serigne Touba la bésu bànneex la bésu mbégte la ñu cantal ko ko yàlla wàcc xéewalam bu bari nag parce que aussi ñun murit dañoo jàpp ni loolu xéewal bu bari la ñun dañoo jàpp ni xéewal la xe taw boobu mu taw xéewal bu bari la ci ci bésu màggal parce que mi ngi taw période bi nga xam ni jàng nañ kaamil yi jàng xasida ba pare ci la wàññi yàlla tuur tuur xéewalam mu nekk xéewal bu bari boo xamante ne dañ ko def donc ci taxawaayu état du Sénégal lam ca waroon def pour régler les ces problèmes ponctuels def na ko ci maintenant la question qu'il mérite d'être posée mooy est-ce que dañu war a mettre en place des structures des infrastructures yoo xamante ne ay châteaux d'eau ay autres pour régler la question du màggal parce que population affluence bu bëri bi màggal rek lay am au niveau de Touba affluence bu bëri bi mais su màggal amul du ñu gis. Touba oui, mais c'est la c'est la deuxième plus grande ville. Euh, également non, c'est habitants. Ah. Ah. présentement. Non. Près d'un million d'habitants. Non, c'est Près d'un million d'habitants. d'habitants. L'information que Google m'a de d'un million d'habitants. Elle n'est pas bonne donc. pour dire près de deux millions, mais il faut saluer les efforts, comme je dis, parce que def nañ ci euh, état bi du Sénégal mettre en place des châteaux d'eau au niveau de Touba. Mm-hmm. La question de l'assainissement. injecté na lu toll ci quarante cinq voire quatre vingt milliards au niveau de l' assainissement ça c' est des efforts yoo xamante ni def na ko maintenant il faut que la population accompagne l' état par rapport à ces actions là parce que gis nañ sabotage bi am ci biir suuf si ci biir ci biir canalisation yi gis nañ ni ñu doon boucher euh, canalisation yi au niveau de Touba sabotage am na mais heureusement population bi une partie de la population jël nañ matuwaay yi ci war maintenant nag nañu ñaan au fur et à ñuy dem comme ni ñu ko waxee accident yi wàññeeku na parce que yokk nañ le nombre de de d' la gendarmerie des forces de défense et de sécurité au fur et à mesure qu'on avance je pense que dinañ dem ba trouver une solution durable face à cette situation de Touba. alors euh, beaucoup d'argent qui ont été injectés ci ci ci ville de Touba et pourtant on en est toujours là on a même vu euh, euh seen leader Bougane Gueye Dany démentir euh, euh, cette somme tout à l'heure on va projeter cette vidéo pour que ñu mën ko euh, gis analyser ko qu'est-ce qu'il faudrait ci loolu. waaw jërëjëf euh, soxna Néné ñuy féliciter toute la communauté mouride ci déroulement màggal gi ensuite euh, li nga wax record et et et. déboire mhm. record effectivement ren euh, ñu ngi totaliser six millions de personnes yu ñëw Touba fekk si lu jege deux millions d'habitants donc ça veut dire que y beaucoup de monde à Touba. donc euh, ñuy profité ci occasion bi di féliciter euh, les forces de défense et de sécurité ren vraiment les accidents ont été réduits à leurs plus simples expressions ensuite li ñuy wax samba boo yeeg yooyu vraiment néew na bu loolu weesoo nag am na yeneen déboires yu fa am yoo xam ni c'est lié au fait que li may wax tout le temps euh, état du Sénégal état de réaction la mais pas état de prévision normalement les services de l'État chaque année war nañu war a mu nekk en mesure euh, approximativement ñu quant ñu quantifier le nombre de pèlerins bi nga xam ni ñooy ñëw ñooy ñëw euh, Touba mën a jël matuwaay yi war effectivement li nga ne beaucoup d' argent ont été injectés à Touba. 560 milliards. effectivement ñun gëm sa bopp on juge que c' est peu. ce n'est pas beaucoup d'argent c'est 150 milliards d'ailleurs boo déggee déclaration président Bougane mi naan fu toll ni Touba sept millions de personnes di fa dajaloo nekkatul waa Tou euh, nekkatul waa Touba Sénégal la et c'est anormal dëkk bu toll ni Touba am dayo bi mu am représenté li mu représenté ñu koy consacrer un dixième du budget d'investissement c'est-à-dire que les mille cinq cent milliards yi ñu prévoir dans le budget d'investissement ñu ciy consacrer un pour cent à Touba loolu moom xam naa ni kilifa yi war nañ ko xoolaat defaat jàngat xam ne Touba dëkk buy màgg la dane ànd ne comme ni su euh, yoonu sëñ ñàkkee tànki ginnaaw kilifa yi bàyyi ci xel daal nii noonu. très bien alors Abdoulaye ginnaaw bu la euh, nuyoo yow tamit tout à l'heure sa micro moo doon def ay caprice euh, di la bàyyi justement par rapport à à cette analyse. bon euh, d'abord je je un revers la main. Mm. le fait bëgg di wut chaque fois parlant véritablement de li nga xam moo di cas d'inondation yu ñu constaté à Duba di wax véritablement des actes de sabotage enjeu balayi d'un revers de la main parce que sëñ Muntaxa Bachir Mbacké euh, ba ñu demee jàkkaarloog moom am na loo xam ne yëkkati na ko ci kaddu jëmale ko ci euh, fànn woowee te loolu bu amoon sax ba ñu teg ñaar wala ñetti loxo c'est par rapport ak li nga xam ne mooy conséquence liée véritablement aux pluies tombées eh, et aux millimètres enregistrés au, niveau de Touba parce que tey chaque fois damay dégg ñu naan ay acte de sabotage acte de sabotage je pense que aujourd'hui waruñu wut ay bouc émissaire bëgg jëmale inondation bi si ay acte de sabotage man loolu moom vraiment du ma si du ma ànd lool lu ñu war a mën a wax kañ moo di euh, Touba vit une situation qui n'est pas nouvelle je dis bien Touba vit une situation qui pas nouvelle parce que daaw itam si période bi gisoon nañu ni am na ay koñ si biir tubaa ay dëkkuwaay si biir Touba yoo xam ne ñu ngi doon jànkonteel ak li nga xam ne moo di euh, les effets euh, euh, jëm si wàllu inondation yi comme à Dakar comme dans d'autres localités du Sénégal donc de ce point de vue là je me dis tout simplement que nii Euh, ni nga ubbee Adama waxoon ni techniquement effectivement que ni techniquement la ñu war a jëm si xool naka la ñuy trouver des solutions non pas conjoncturelles par rapport ak événement bi ñëw ñu xool naka la ñuy nabb nabbee pour mën a évacuer ndox bi mais plutôt des solutions structurelles en tenant compte du fait que la ñuy dund si ndox yuy tuuru en réalité ce sera cyclique il y à peu près trois ans ou quatre ans météo Sénégal ak lii nga xam ne moo di organisation bi def di SILS dañoo def ay prévision jëm si li nga xam ni moom la ñuy xaarandi amaana si ndoxu taw te mën na sax soppeeku euh, par rapport ak li nga xam ne moo di changement climatique yi dono le cas véritablement de de la Grèce ou de l'Espagne où na en un seul jour près de six cent à huit cent millimètres de plus daanu nañu fa jël nga daaw xaw ma daaw ga ca Allemagne taw na si benn bés lu mu war a mën a taw si weer donc loolu il faut nu ñuy calculer que ni ñun Sénégal nous ne sommes pas un nilo euh, euh, lointain boo xam ne dafa nekk à euh, détaché du reste du monde que nous pouvons également euh, vivre ay situation yoo xam ne la ñuy xaar ci ndox na yàlla ji mën na ko multiplier par trois par quatre donc aujourd'hui plus que jamais li war effectivement mooy un plan d'aménagement boo xam ne c'est lisible et clair. Mmh, mmh. loo xam na ni xam nañu ban surface la ñu war a mën a tabax ak yan surface sañu ñu war warta mën a tabax quelles sont les surfaces